jox seen loo jox nañ leen jeu de maillot ba nga xamante ni dafa ànd ak kilo ak baa muy maillot original ak benn ballon compétition moom la ñuy monsieur le maire di jox bu yat sérif suñu jogee ci bu yat sérif wandiireen ndax ñu ngi ci ndaje mi wandiireen wandiireen comme ñoom ñëw nañ ci ndaje mi monsieur le da leen di jox seen maillot complet bu ànd ak ba ak balu compétition moom lay jox waa Ndiréen suñu jógee ci waa Ndiréen dañuy dem ci waa Kër Saa Xayta su fekkee ñoom ñu ngi ci ndaje mi ñu ñëw jël seen loo waa Kër Saa Xayta maillot équipement complet ak ballon waa Kër Saa Xayta ñu ñëw jël seen loo mayo équipement complet ak ballon suñu paree ci Kër Saa Xayta dañuy jàll ci Pëleen Poon waa Pëleen Poon ñu ñëw jël seen équipement complet mayo kilo bas ak bal waa Pëleen Poon ñu ñëw jël seen équipement tur la ah ah maam biram ah. maam biram ñaa moom moo jël loowu waa Paleen maam biram ñaa moo jël loowu waa Paleen suñu paree ci waa Paleen dañuy jàll ci siinu mbaari waa siinu mbaari waa siinu mbaari tur bi tur bi ah? Ah, magay gise moo jël loowu waa siinu mbaari magay gise moo jël loowu waa siinu mbaari suñu jógee Sinu Mbaa rek dañuy dem ci Fembul ci Fembul Fembul. ah Thierno Dieng. Thierno Dieng mooy jël loowu waa Fembul. Thierno Dieng mooy jël loowu waa Fembul. Thierno Dieng mooy jël loowu waa Fembul. Thierno Dieng mooy jël loowu waa Fembul. suñu jógee ci Fembul dañuy jox waa Sanc Buuna Sanc Buuna ndax Sanc Buuna. waa sanc buuna sanc buuna sanc buuna tegal tegal lool tegal waaw nu mu tudd nu mu ah Cheikh Bou Diop mooy delloowu waa sanc buuna Cheikh Bou Diop waa sanc buuna suñu jógee dem ci waa Touba Fall Touba Fall mu xeer Ibrahima Ndiaye mooy jël loowu waa Touba Fall Ibrahima Ndiaye mooy jël loowu waa Touba Fall Ibrahima Ndiaye mooy jël loowu waa Touba Fall Ibrahima Ndiaye mooy jël loowu waa Touba Fall suñu jógee